ma Mamadou Lamine Diawo ginnaaw nag ba mu jàkkaarloo ko takk der yi avoué ni moom moo daal di rey Abdou Aziz Dabala ak kii di Waly lam ca teg moo di amul benn regret rëccu ko benn yoon ndax nee na ñaar ñooñu ay borom ñaari tur lañ li mu daal di révélé moom Mamadou Lamine Diawo moom moo di Abdou Aziz balaa yàgg na ko woo ngir séq ak moom diggante góor ak góor waaye lu mu daan bañ la waaye dimanche li waral nag mu daal di déplacé wu fekk jikka ci appartement ba moo di dafa amoon problème mu cinquante mille ndax yaayam da koo daal di euh, waroon jëndal ay ordonnance te nee na ba muy dem kër Abdou Aziz moom fecckat bi moo ko yónnee paas mu daal di fekk ci ko foofee ca appartement bi nee na nag amul woon benn yoon intention daal di koy uh, faat waaye nee na ba mu yeggee ca appartement ba nangul nanguwul séq moom jour boobu waaye menacé na ko ab paaka ngir mu jox ko xaalis ndax nee na ko su ko deful woon dina ko boole askan mi wax ne Abdou Aziz Dabala kon uh, ci anam boobu la doon uh, dundee waaye nag uh, ci noonee lu mu yëkkatee paaka bi nee na la mujjee daal koy faat jugee fa fekk kii di Boubacar Gano di Wali ci biir néegam daal di koy itam fekk mu takk ay kaskam am lu muy déglu ci la ko daal faat moom itamit ci kanamam daal di ne ko kon moom itam borom ñaari tur la. laata mu koy euh, kon faat loolee la daal di jibal devant gendarme yi nag kon Mamadou Lamine Diawa déclaré na ni rëccu ma benn yoon jëf ji nga xamante ni jëf na te nee na mi ngi daal di assumer loolu euh, li nga xamante ni wax na ko ci biir procès verbal mii kon présumé meurtrier bi nag nee na téléphone Abdou Aziz Dabala ci ab canal la ko dugal waaye bu waali da ko daal di jaayee soixante quinze mille ca marché Ocass réseau ba ginnaaw loolu nag euh, ñii di policier yi bu kon commissariat bu Pikine la ñu dañ def ca biir appartement bi moo di ab constat Abdou Aziz bala biir këram bañ fa demee nee nañ fekk nañ fa ay lubrifiant waaye tamit ci ab darab boo xamante ni moom lañu ko laxasee euh, li nga xamante ni moom moo di porte yi nag dañ ko daal di euh, tëjoon bu waañ beek bu euh, néeg bi à moo waral nag ñu daal di jàppoon ni ay proche ñoom ñoom def lu ni mel loole nag moo waral ñu def découverte kon noonu ñu ko waxee ak i desitu chanvre indien ak yeneen yu ni xeetoo waaye lu mu daal di révélé réquisition téléphone yi ñu defoon moom moo di moom présumé meurtrier bi daan communiqué lu bëri ak Abdou Aziz Dabala bokkoon na tax ñu daal di koy ciblé comme principal suspect waaye mason bi nag dafa daal di defoon téléphone am or service ngir éviter ñu localiser ko waaye nag erreur bi mu def moo di daal di insérer maanaam dugal puce ci appareil cellulaire bu Wally kon mercredi 21 août 2024 Mamadou Lamine Diawo Modou Lo kon daal di ànd ak onkulam bi mu confessé woon secret boobu nag ca grand màggal bu Touba ñu dem ca ginnaaw bi nga xamante nijaayam bii di uh, Ousseynou Diawo tiit na ci la daal di dem boole ko gendarme yi foofee ca diwaanu uh, Touba kon ñu def seen arrestation boobee ginnaaw bii lañ leen daal di indiwaat fii ci uh, kon Ndakaaru laataa ñu leen di defeere ci police bu ginnaaw raay